Boubacar Seye ñu ngi lay nuyu. Fatou ñu ngi lay fay. yow yaay njiital ONG sans fronti horizon sans frontière ONG horizon sans frontière alors Boubacar Seye euh, am nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi euh, nga génne liste boo xam ni euh, mooy fësal fukk ak juróom-benn sénégalais yi nga xam ni faat nañu leen ci bitim réew bi at mi dooree ba léegi ndax mën nga dellu si ci. anam gi nga xam ne suñu mbokk yooyu ñàkkee nañu ko seen bakkan ak xëy na euh, li toftalu ci mbir yooyu maanaam liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci mu jëm ci wàllu yoon ak euh, yu ci aju. waaw effectivement xam nga tey soo dafee seetlu rek tey euh, maanaam tukki. Uh, mu ngi bind tey mu ngi redouler page yi nga xam ni tey moo gën a sombre hein euh, dans l'histoire de notre pays euh, à travers euh, assassinat yi ak mort suspect yi nga xam ni tey moom ngay dégg Euh, muy daal doomu sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk bitim réew euh, depuis le début de l'année euh, fukk ak juróom-benn sénégalais ñii dañ leen a faat ñii dee ci anam yoo xam ni pratiquement dara leeru ci boo xoolee bi ci gën a bi ci gën a récent mooy le cas de la famille Jibi Njool bi nga xam ni ñoom la wax ni ñoom ñoo gaañu ci benn Euh, accident boo xam ni dañuy wax ni sax d'origine criminelle la foofu ci Denver euh, ñuy jooy noppeetuñu ñaari fan euh, Babacar Dia ñu dóor ko fital foofu ci Missouri ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni dee nañu ci anam yoo xam ni ci deux mille vingt bi ci circonstances yoo xam ni kenn mënuloo ko wax mën nga gis nga le cas Doudou sénégalais bi nga xam ni moom moo dañu xëy rek ni dafa daanu ci benn fourneau métallurgique loolu nan la mën a nekkee loolu yëpp dara leeru ci gis nga buuna sëy euh, oto bi mu doon liggéeyal moom la ko chauffeur bi toog ba si àgg écrasé ko ñu ne dee na te mujjul fenn yooyu yëpp mu nekk ci ñun ay naqara ak ay tiis yu métti yoo xam ni euh, vraiment ñu koy ñaawlu. Hmm. waaw di ko condamné euh, vraiment bu baax. Hmm. alors lan moo waral euh, assassinat yi ak crime yooyu ngay wax takkarnaase ci jamono ji waaw xam nga mbir mi dafa dafa dafa jéggi dayo dafa takkarnaase comme ni nga ko waxee parce que lan mooy expliquer ces assassinats may damay wax ni c'est l'absence de politique intégration xam nga intégration Euh, fu mu amul rek kenn mënu fa wax immigration mooy yaatal bi ñu war yaatal gan yi ci wàllum liggéey ci wàllu dëkkuwaay loolu nag li koy lal nag mooy benn relation boo xam ne dafay am euh, ci gan yi ak ñi ñu fekk si mu mu une relation basé sur le respect et la tolérance mutuelle loolu moo amatul dafa am une crise des politiques d'intégration intégration culturelle et intégration structurelle ci àddina bi loolu moo tax tey immigration nekk tey source de de tension géopolitique ci àddina bi yëpp boo xoolee tey euh, boo demee ci yenn dëkk yi sax tey euh, da ngay gis ni la migration dafa nekk le contraire de l'identité gis nga loolu moo indi les espaces de repli identitaire euh, tey ñu ne gan ñi ñooñu xañ lii gan ñi ñoo tax amuñu lii ba nga xam ni tension yi dafa bëri lool moo tax nag suñu deful nank rek yu mel nii surtout avec l'ère post coronavirus day xaw a doy war hmm. donc li ko indi ci maanaam moom mooy l'échec des politiques d'intégration yi nga xam ni tey ni ko indi moom mooy les politiques qui ont dans leur idéologie classique loolu moo tax tey ñun ñu ne ñoom dañu war xoolaat seen tërlin parce que dañu nekk dans un contexte mondial de globalisation il y a une globalisation il y a une mondialisation des flux migratoires avec tous les profils ba tax na rek il faut que ñu xoolaat ko euh, ñoom ñu gën a teg le culte de la diversité comme cheval de bataille aujourd'hui pour jàmm ci àddina bi wax ak yu mel nii euh, bañ a amati. d'accord alors mu ñu méngalee at bi ak yeneen yu weesu mën nañu jàpp ne bii mooy bi gën a metti en terme de bakkan yi rot ci sénégalais yi. waaw soo xoolee euh, fukk ak juróom-benn euh, depuis le début de ne loolu lu muy tekki moom mooy en moyenne chaque weer dinañu am ñaari déew c'est déjà loolu dramatique année bi moom déjà moom c'est dramatique maintenant liñ ci gën a ragal nag ñun li ñu gën a ragal tey euh, mooy c'est l'ère post coronavirus bi nga xam ni moom suñu deful nank rek dina indi ay tensions géopolitiques yu jéggi ci àddina bi des tension yoo xam ne lu ko indi mooy le racisme et la la xénophobie dans certains pays d'accueil parce que soo xoolee euh, sur le plan économique il y dafa am ay risques de récession donc ce qui fait que dans certains pays d'accueil la théorie de remplacement ou d'évasion mooy ñii dañu ñëw pour jël fi nekk ñii dañu ñëw pour jël suñu liggéey boo xoolee cette théorie là dinañ ko gën a priser euh, dans l'ère post coronavirus te loolu su amee dina indi tension yu bëri euh, dans le domaine de l'immigration et les foyers d'immigrés ñoom ils vont payer des de de des, des comment on appelle un tribut très indi assassinat yi mooy indi violence yi mooy indi lu nekk donc euh, parce que taux de chômage bi dafay affecté euh, ñi nga xam ni tey euh, ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy gan yi ñoom ñooy waa dëkk les pays autochtones mm-hmm. ñooñu nag ñoom gan yi lañ koy lañ koy lañ koy ji loolu moo tax tey il faut que ñu xoolaat loolu mm-hmm. nga xool dëkk bu mel ni États-Unis tey dañu wax ni Euh, l'ère post coronavirus dañu wax ni euh, li mu indi comme taux de chômage euh, trois virgule soixante quinze moom mooy son son niveau le plus bas depuis cinquante ans mu yéeg ba quatorze virgule sept son niveau le plus haut depuis plus de quatre-vingts ans donc mu indi nag voilà des des une préca une précarité boo xam ne day jur tension nag gis nga mu lal ay tension raciale moo tax moom soo xoolee euh, l'ère post coronavirus bu ñu defal nank rek dina fa indi yenn problème yu bëri. Mm. nga dem Europe tamit même chose en Italie même chose gis nga boo xoolee la typologie des crimes là yooyu lay jur ñun loolu la ñu gën a ragal moo tax dëkk yu mel ni Sénégal nag dafa war a war a a war a parce que le Sénégal est un pays ambulant ay doomam dañu dañu tas ci àddina bi. kon moom su deful nank rek wanewul fulla rek di protéger rek day indi ay njaaxum yoo xam ni dafay exposer tey ay ay doomam bitim réew. kon da nga jàpp ne euh, di protester maanaam di ko ñaawlu euh, dem xëy na sax fu gën a sori mooy taxawaay bi ñu war a am désormais pour xëy na fagaru ci mbir yooyu ngay wax. waaw waaw Sénégal il faut que mu fagaru le Sénégal est un pays ambulant Sénégalais ñu ngi fu nekk migration dafa nekk dafa nekk euh, pathologie ñëpp bëgg a tukki théorie yëpp dafa vérifié wu Sénégal. alors dëkk bu mel noonu nag da ngay jël ay matuwaay pour mën a aar say doom da ngay wane fulla da ngay protester pour suñu rey say doom mais malheureusement loolu gisuñu ko fi euh, dëkk bu mel noonu dafa war a am une véritable politique gisoo dëkk bu ñu laal gisoo France rek bi ay doomam deewee ci ay xeex rek dañoo teg benn conseil de toog waxtaan convoqué euh, da ngay da ngay protester. Hmm. parce que addina bi loolu moo fi nekk. nit ñi comme dañuy dañuy lekkante comme ay jën dañuy nappante. alors soo wanewul fulla ñu toroxal say doom surtout dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ni mën naa wax na ñi nekk bitim réew ñoo yore réew mi li ñu dugal ñëpp wax nañ ne moo ëpp l'aide au développement mais ñooñu war nañ leen a taxaw dëgg la alors lu jëm ci euh, famille Ndiol Djiby ak euh, ñi mu nekkaloon ñoom ñëpp ñu ànd ñàkk seen bakkan ci ab lakk goo xam ne njort nañu ne nit a ko def euh, bi mu amee gis nañu président ci Twitter mu naqarlu mbir mi daal di wax ne dinañu ko topp ñoom kilifa yi ndax am nga yaakaar kon bi yoon ñu am taxawaay bi war ñoom waa nguur gi. waaw man d' abord euh, bon on espère am nañ ci yaakaar xanaa parce que d' abord mode de communication bi sax man dafa xam ci Twitter non parce que yu demee nii da ngay taxaw nga wax ak askan bi parce que c' est le peuple qui ànd wax naa leen dès le début sax il fallait que ñu teg une cellule de crise mais on espère que nag cette fois-ci ah dina am une enquête sérieuse on espère que nag cette fois-ci l'état du Sénégal dina constituer partie civile parce que aussi trop c'est trop ñaata doomu sénégalais lañ fi rey te mujjul fenn. la liste serait exhaustive donc tey jii nag je crois que état du Sénégal war na jóg wane fulla dama wax ni le procureur de la République puisque les victimes sont sont sont sont sénégalaises war na mën a diligenter une enquête war nañu mën a euh, l'état constitué wu comme ni ma ko waxee léegi partie civile loolu dafay permettre à son homologue du du da pays d'accueil mu ubbi une information judiciaire pour ñu mën a xam euh, le mobile du crime solu c'est important damay wax ni c'est capital parce que l'enjeu est humain mhm. parce que tey jii soo xoolee euh, dëkk yu mel ni États-Unis crimes yéen fa doon am c'est des crimes liés à la délinquance mais avec l'avènement de de, de de de Donald Trump il y a eu beaucoup de tensions raciale y a la xénophobie il y a le, pays dafa dafa nekk dans une fracture sociale mais ñaata doomu sénégalais noo nekk tey tey tey tey foofu ci États-Unis mm-hmm. kon lii su demee crime bi dafa war a tax Sénégal jóg man damay wax ni Sénégal waru sax xaar américains yi di def enquête ñoom dañoo war a ànd ak ñoom dafa enquête bi à la limite waroon na am euh, euh, une délégation d'enquêteurs ou bien parlementaire dem aux États-Unis pour saytu li xew mm-hmm. parce que su fekkee c'est un crime d'ordre racial loolu dañ ci war a jóg pour mën a aar doomu sénégalais yi nekk foofu mm-hmm. dañ ci war a jóg pour mu bañ a am man dama wax ni sax l'ambassadeur du Sénégal des États-Unis bi nekk Sénégal dañ ko waroon convoquer dañ ko waroon convoquer pour des explications crédibles parce que dama jàpp ni euh, le peuple a besoin de comprendre nous au niveau de Horizon sans frontières en tant qu'organisation de migrants ñun nous avons besoin de comprendre di xew il faut que ñu expliquer nous qu'est-ce qui se passe parce que loo xoolee si seize personnes yi yi ñàkk seen bakkan euh, juróom-ñett États-Unis lañ mm-hmm. ñun dañu bëgg a xam kon état du Sénégal li mu waroon njëkk def Euh, convoqué ambassadeur bi pour ñu wax ñu leer mais loolu yëpp amu ci euh, ñin fi musa rey yëpp soo xoolee du mujj fenn et ça nous nous le regrettons loolu tamit war naa mën a dakk aussi parce que nag damay ragal ni trop c'est trop. Mm-hmm. justement Boubacar noo comprendre en tant que sénégalais euh, lii yëpp xew kilifa yi ne tekk rek gisuñu ci benn réaction amul benn suite loolu en tant que sénégalais noo ko jàngatee. waaw loolu man en tant que sénégalais en tant que immigré. Euh, loolu loolu loolu tiis la tiis la pour ñun naqar la pour ñun day sax loolu moo tax nous avons pris nos responsabilités dans Horizon sans frontières parce que suñu ñëwuloon wax yëpp du fi am kon Sénégal moo war a xoolaat taxawaayam nu muy gën a taxee doonam li ko indi nag moom mooy euh, Sénégal amul benn politique migratoire boo xam ni bu mu teg boo xam ni li ko tax a jóg moom mooy aar doomam yi nekk bitim réew parce que tey li mu gën a soxla si contexte mondial bi ñu nekk nga xam ni dafa dafa dafa dafa dafa euh, dafa marqué par des crises des crises identitaires ci addina bit lié à la migration tey migration nekk un élément essentiel de la géopolitique mondiale je crois que tey dëkk bu mel ni Sénégal war na woon mën a taxawoo daneen ay doomam mais malheureusement loolu amul Sénégal amul politique migratoire euh, Sénégal sénégalais de l'extérieur politique boobu lay ref moom mooy ay ñoo xam ne rek dañu leen di utilisé comme grenier su politique amee su élection amee ñu dem topp seen ginnaaw Euh, su su jeexee ñu bàyyi leen et pour preuve gis nga su élection amee parti politique yëpp dañuy dem. Mhm. ils vont ils vont aller pêcher en Europe. mais déggoo dégo association yi kenn wax ci y' a pas de condamnation. Mhm. kenn du ci wax ñoom ñëpp dañ na pat pataaral taxaw di ñu seetaan ce qui fait que tey jii le scénario mooy ku dee perte nga sa bakkan nous sommes au scénario où les Sénégalais de l'extérieur sont laissés à eux malheureusement ci contexte bi ñu nekk. ku ñu nga kenn taxawu leen. amul amul benn taxaw amul benn taxaw. kuñ fi ay pour preuve communiqué yu ñuy def ni ñoom ñoo ko waroon dans un état de droit on communique. Mm. ñoom ñoo waroon taxaw tey wax daf le bilan ak la presse mais c'est Horizon sans frontières qui fait ce travail là. kon consul fa nekk ak ambassadeur ba ak yooyu ñoom lan mooy sen liggéey ci sénégalais yi. waaw xam nga euh, tout dépend rek moo tax man ma ni tey il faut que Sénégal lal une politique migratoire avec de nouvelles juridictions. nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions pour mën a taxawu doomu sénégalais yi dekk bitim réew parce que soo xoolee euh, euh, boo xoolee les quatre vingt dix pour cent des consuls ou vice consuls sont donc nguur gu ñëw rek da ngay teg nit euh, mu indi lan un problème de management loolu lay indi parce que ci biir consul yi am na ay diplomate de carrière léegi soo jëlee benn politicien nga teg ci kaw un diplomate de carrière y a un problème puisque le dossier migratoire à défaut d'un ministère plein chargé des migrations internationales il faut que ñu xoolaat ñoom seen tëralin ni ñuy doxee ba nga xam ni dossier bi euh, ou bien les consulats dañuy nekk ay diplomates de carrière pour éviter des problèmes de casting maintenant nous sommes d'accord que dans la démarche de l'État mu jël ay nitam d'où il faut effectivement mu am euh, euh, euh des profils pluridisciplinaires parce que loolu yëpp tey dafa la migration dafa transversale mm-hmm. ci kaw daal ñu jiital les diplomates de carrière pour et cetera parce que gis nga politicien soo ko tegee ci kaw moom gain politique lay wër. Hmm. du nangoo wax li am parce que moom li neex ko hmm, hmm, bi def na lii wala kële def na lële parce que kooku du nangoo wax li am. parce que liñ ko fi jëlee pour mu wax li neex ki ko fi teg. parce que moom moom moom loolu du métier dafa xëy rek ñu gagné ay élection rek ñu ñu ñu fal ko. loolu tamit loolu moo ñu dal. je crois que côté boobu je crois que euh, damay wax sax ni l'état du Sénégal tey li mu waroon def mooy organiser euh, les états généraux de l'immigration xool ñan lañ fay teg au niveau des des des des xoolaat sa politique migratoire mm. xoolaat ñan ñoo xam ni tey ñoom ñoo gën a mën a taxawu tey les Sénégalais de l'extérieur vu problématique yi am yëpp pour ñu mën leen fa teg suñ ko dafa rek gisoo boobu ba léegi le dossier va à la traîne amul benn changement mm. ñaata yoon nga ma invité ciy wax ëpp na fanweeri ñoon mm. te suñu deful nank day mos a continuer nu mujj fenn loolu nag li muy indi tey mooy une crise de conscience entre l' du Sénégal avec sa diaspora et loolu loolu baaxul kon état war na xool nu muy doxalee tërënam tey nu muy doxee politique pour mën a taxaw doomam yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew. Mhm. bu ñu leen fàttee mu protester parce que loolu moo normal. jërëjëf Boubacar Seye ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey.